salaamaaleykum mbokk internet dakarnet.com kon ni ñu ko defee saa su nekk di dalal ndaanaan yi ak artistes yi fii Sénégal tey nag dañuy dalal Père Max euh, bu ñu fa jógee tamit di dalal euh, Jamaïcain nekk promoteur wala moo tëggoon combat xoyantaan bi ak euh, Baye Mandione duñ defee lu dul Père Max Père déjà. yi mhm. ngi nuyu Jamaïcain tamit ñu ngi leen di nuyu di la maa ngi lay delloo genre bu baax di la nuyu di la fay yow tamit di la ziar bu baax a baax. alors mi ngi noonu kon du ñu def rek lu dul dugg ci waxtaan. waaw ni ñu ko gis mooy xam nga da ngay am li nga bëgg mébét ko rek mais programme bi suñu borom a ko yor gis naa na daal ñaari mbër yi promoteur bi merewu leen duy nañ stade ba mu fees del donte combat bi nag xalaatoon nañ ne danañ bëre lu dàq loolu. mais mu mujj jeexee ci décision arbitrale mais nag ci règlement la ndax Modou Lo Lac de jeexee na fa Balla Gaye Gris Bordeaux jeexee na ci décision arbitrale kon Quench ba mu demee ba xam ne am nay avantage kee jël na ñetti avertissement dafa géré bañ amaat ñoom ñaari avertissement mu am cinq moom mu am deux avertissement ñu yëkkati loxoom victoire victoire la Euh, ki nga wax ko gis naa nga ni ay ci Modou Lo ak la de Guiers mais ñooñu mun naa naan am nañ fu ñu yegg mais ku ci mel ni Quench ak double moteur woo na ñoo mun a joxe loolu démb parce que leen di euh, téléspectateurs yi doon doon doon gis ci ñoom gisuñu ko quoi doon xool ci ñoom gis noo danga naan gisuñ jël bëri nañ xeex nañu bëri nañ naaj ci nañu def nañu lépp mais ndam sunu borom a koy joxe. Mhm. règlement am na ko tey bi ñuy yëkkati bi muy am cinquième avertissement boobu sept minutes la ñu bëree. ci mhm. deuxième temps bi desoon na huit minutes. Mhm. kon huit minutes yi desoon lu ne xaj na fa. waaw kon bëri nañ quinze minutes. mu am xeex am bëre. xeex ba ñuy génn saako yi. Mhm. mu am xeex am bëre. Mhm. quinze minutes. Mhm. benn mbër bi am trois avertissement bi ñu dellu see bëre sept minutes. beneen mbër bi amaat yeneen ñaari avertissement kon li ñu waroon def def nañ ko mais du làmb bëre walbit gàng rek mooy jële déedéet làmb tëddeewul noonu. mais aussi dañoo xam ne Koyante Moussa Moussa dugg. mais làmb du ni ngay commencer rek ngay continuer. loolu ci loolu ci mbër yëpp la non looy gën a jëm ci comme say combat di gën a diis di gën a métti dañu lay gën a jàngat di xam li nga mën a di xam li nga mënul di entraîner comme yow parce que doo nangu benn manit rek nga daan ci ñëpp non dañuy wax rek am na sax ñu dal sama kaw man ne maa ko téye ndax maay ménager maay directeur technique am mais làmb li la làmb may da nga koy jël ndam ngay wit si am nga ndam mhm. da koy bàyyi dem defi leneen double moteur it kenn merewu ko ndax fii may wax ak yow promoteur yi ngay wax ak man ci yeneen i adversaire waaw mais gis nañ combat bi euh, Koyante jàpp na double moteur di ko dóor. di ko mhm. topp di ko attaqué di ko dóor bañ ne instant yi saye dafa woon song mais dafa téye boppam. song na ba tërëf ngir bëggoon yéen ngeen def te bu forcé woon daanu ñu ne voilà mënoon na te am làmb foog mu am coow fi mu ne bi ngeen ne dafa waroon forcé su forcé woon ba daanu ñu ne voilà mi nga am avantage au lieu mu baare xam ne bu temps bi jeexee moo am ndam dañuy wax rek. Mhm. làmb seetal li arrangé rek nga def ko. ndam la doon witi am na ndam. d' accord mais tey tey ndam ah, daan ba yëg ci kaw ah, ki ngay bëral tey bi dafa neex. non déggoo li ma la wax waaw. Uh-huh. ci football dafa boo kon duñ defar règlement yëpp léeg-léeg du am. Uh-huh. ay mbër dañu bëri jël du am moo waral ñu dugal règlement yooyu pour partager leen. Hmm. mais réglement bu ci ne. Hmm. da nga koy nangu. yow jàpp nga ne ci loolu noonu arrangé nañ ci ñoom ñaar mbër yëpp. non am na am na dam ay combat ci ay benn ci ci ci ay décision. bi nga bi nga koy reporté. wala nga xëy bindu ko looy def. Hmm. laajaan naa la ko. ah laajaan naa la ko. xam nga da nga naan da nga naan Quench gagné double moteur. waaw ndam ngay wit si. fi ne bu doon match 3 points ngay xëy lay marqué ndama ci am solo. Hmm. am na ndam day wite leneen. Mhm. Euh, double moteur démérité wul day wóor na ma ne ñu ngi ko mbaam ndax dañoo duy stade ba mu fees ñoom ñaar. Mhm. mais bañ duyee stade nag foofu bëree war na fa mën a am quand même père jàpp bëree daan. kon yow du du léppay bëre daan du léppay jàpp bëre daan làmb da ngay bëggee nii mu ji nga fi ay poids lourds yu ñu fay den centaine de millions. Mhm. dañuy leewaatoo ba làmb ji jeex ñu ñibbi fi ñi loolu amu ci xeex nañu bëre nañu kenn ki am cinq avertissement. am nañ dem nga ardo lu ne am na fa xeex nañ bëri nañ. mais poids bu mu ànd woon dem est-ce woon na ko. non na ko ñooñu ay xale lañ dañuy màgg benn poids bi mënoo cee bëri xoolal surtout bi muy débuté dañ ne du mbër. mu doon ciklit booy sew ruuj. ngay mm-hmm. gis nga fi mu toll léegi booy mm-hmm. jëm mag da gën a màgg di jël poids. Mm-hmm. waaw d' accord euh, du ñu lu dul waxtaan ak euh, jamaïcain après ñu dikkaat ci yow incha allah. Jamaïcain ñu gis la combat bi nga tëggoon xoyantaan ak Baye Mandione euh, fee ca bi mu amoon ay problème nga bëgg a tëggaat lu waral nga bëgg a tëggaat combat question bi ma posé dina kontaan ci tontu ci euh, combat bi nga tëggoon fële ca mu am problème nga war ko tëggaat waral nga bëgg koo tëggaat problème bi ñu jàpp ne moo ci am. moo tax moo war koo tëggaat. waaw loolu rek. mooy question bi nga posé ne bu amoon problème. waaw kon problème bi nga jàpp ne moo ci amoon muy làmb ju bañ a yegg ci daggal say we dagguma samay we moo tax ma bëgg ko tëggaat mu am wëddal gàng ñu daanante seen biir ndax làmb joo xam ne làmb ju war a yegg la waaw coupe la kenn daf ko war a yóbbu. Euh, jël ngeen ci ay matukaay yu baax parce que. combat bu demoon ba nar a yàqu ci ay yooyu ku ci mel ni Père Max ak ñu mel ni moom nañ wàcc defar bis bis yu gën a critique yooyu am na fi ñu defar ko mm-hmm. waaw. keroog kay bu ñuy jooy ci làmb ji fële ci Gàmbi loolu rek la ñuy jooy làmb jaa wéetoon ay kilifa waaw wala ay kilifa yu xam làmb boog mën naa bari kilifa te duñu xam làmb làmb boo xamee ni muy doxee rek làmb su duñooree nga xool ñu ne spécial bees des lépp lu dañ ne làmb ak say yem lu feeñ ci ngoro lu feeñ say néewoon na ci ngoro dañ koo fay waaw moom soo ci nekkee yàgg koo dund yàgg koo xam lépp lu ci war a feeñ rek dina la ko signaler avant ñu ci yegg bu doon ay mag rek ñoo fa nekkoon yu dund làmb pour ñu régler situation boobu noonu lu ndaw lay doon. aussi gis ne ah, tëgg nga combat le vingt 21 décembre naka ngay préparer combat boobu novembre. le 21 novembre Pam Ndoye Abou Ndiassé ñu ngi ci wàccaay wi waaw Mamor doomu Fass sax super jamono si la ñuy bëri si tëbu ngor Franc mbër Milkizo jeex jàmm alliance Balde Sibor serpent da ciy bëree Brock énergie ak fils de Paul. Paul da ciy bëre ak fils de Sadio nga am Tyson bu Saloum ak Macau dañ ciy bëree mu nekk journée boo xam ne tey combat yi booy espoir yoo xam ne macha allah kenn ku ci nekk boo ko dugalee stade mu def fa jaloore ñoom lañ fas ñoom lañ indi war ci ànd ak nag njabootu làmb yëpp éviter ci amateur yëpp am doy abu ñaasi drapeau laaj Diop directeur LONASE futur maire de golf ñu ngi koy ñaanal bu baax spécial bi ñu tuddee ko ambulant yi muy Mamor doomu Fass sax subar jamono képp kuy marchand ambulant jaaree ko seen njiit Mamor Lo ak Mor Diouf ñi nga xam ne wax dëgg yàlla def nañ taxawaay bu am solo marchand ambulant yaa ngi waaj lu garaaw nee nañ incha allahu rabbi une heure mu fekkul stade doo dugg Sibor alliance Bal dañu delloo ko njukkal sunu xarit wulli nga xam ne day laaj vrai moom lañ jox drapeau bi si tabu ngor faram bu ër drapeau la Diop. borom jooni jooni maaraabu international moom lañ ko tuddee kon nekk na làmb joo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci yow amateur yeeg sénégalais yeeg sénégalais yëpp. alors waaw dinañ dikkaat foofu incha allah mais père euh, dañoo dañoo bëgg nga dikkalaate ñu ci combat Siteu ak Papa Sow parce que nee le 5 décembre bii la waaw loolu lan ngay mën a wax ci combat boobu. non li may wax mooy ñu ngi koy waajal rek comme d'habitude dañuy yàggali sax nag. waaw mais boo déggee ma wax loolu comme comme euh, li leen daloon. di préparer ba benn moment ñu ne combat mënatul am côté foofu laay waxee. ah loolu ñaanal ñaanatuñ ko yàlla rek. mais ñu ngi waajal. ban impact la defoon ci yéen. non métti métti rek. waaw métti métti métti métti. Mhm. te état bi réagirul promoteur bi victime la mënta jox mbër yi ndax moom xaalisam la investir te mënoon cee defi leneen mais le lutteur lañ ko joxoon financé na ko. Mhm. cas de force majeure la état bi waroon a yëkkati da dàmp mbër yi ndax mi ngi koy def ci yeneen secteurs yi. Mhm. Euh, euh, mobile looloo ko dal mu bañ a bëre ji nga CNG bi dafa rëq ndigam pour mm-hmm. sauver promoteur bi mm-hmm. mais tey Siteu Papa Sow deux ans ñu toog di xaar mm-hmm. mbas mi dal ci kaw réew mi yeneen secteurs yi ngeen dédommagé leen ñoom ngeen seetaan leen état bi mi ngi koy def ci yeneen secteur mënoon na yëkk di dara sax jox leen ne ñoo leen ko dàmpee kon ba léegi ñoom joxuñu leen dara joxuñu leen dara ba pare ne leen da ngeen di bërewaat Hmm. ñu dajalewaat ak seen i mbokk dajale li seen i déem ak seen i daxaar pour waajaat mu mitti rek mitti lool miti lool. Hmm. mais loolu yàlla dogal. di ban analyse ngay mën defalaat ci combat boobu. non mënu ma ci analyse xam nga boo faree ñaari mbër yi xam naa ñoom ñaar ñëpp fonk nañ ko. mais bu dee maa yor Siteu hmm. ak Papa xam naa daal ñoom ñaar fonk nañ combat bi ndax Papa Sow dafa jóge Fass créé écurie bu bees. te bii mooy premier sortem ci écurie boobu. Siteu jóge ci guy gi. waa jàmm gën ni ne ko bi yoon laaju ñu la dara ndam rek la ñu soxla. Mhm. kon ñoom ñaar ñëpp am na lu nekk si ginnaaw lu tax nga fonk combat bi pour bëgg am ndam. Mhm. combat la boo xamante ni ku la ko yombala rek moo la ko xañ du yomb. ñoom ñaar ñëpp ku ci ne bëgg nga ndam ba pare ku ne jóge ci defet mhm. moo tax combat bi am solo. d' accord bu ñu ko jógee tamit dañuy dem ci combat wu 19 décembre bu nekk Tapha Tine ak Boy Niang naka nga gisee combat boobu. waaw bi ma toog yow di wax rek la ma promoteur bi di wali Pape Thialis. di ma wax mhm. ci combat yu ndaw yi combat préliminaire yi. Mhm. xam nga ñooñu maay seen coordinateur maa yor programme bi. dëgg la euh, mbaa fa am benn mbër bu ne Joal. Mhm. bi ñu fa yóbbee galaa moo jël simple bi. da ko ne woon dinaa la bëriloo. am na benn booy bu ñox wax bandi 40 ans moom it da ko dinaa la bëriloo. Euh, Doudou Sané rek lañ ci waroon bëreloo mu am mu bëri woon grand combat ci sëñ du ñu diggaat ko yeneen i combat mhm. mais maanaam mboolem ñetti gala yi mu organisé woon mbër yi ci bijeeloon yëpp mhm. ku ci ne lam la waxoon respecté na ko mhm. Boy Niang Tapha Tine nag ñu koy waajal ñu ngi waajal sax su ma juumul benn face à face ci Ibamar le vingt cinq novembre lay doon Ibamar Diop le 19 décembre nag ñoom ñaar ñëpp ñu ngi koy waajal euh, muy combat boo xamante ne nii enjeu bi bari na. ndax Boy ñaa boo jëlee tafaatin ci biir préparation nga jër Balla Gaye. Tapha Tine danaan Boy Niang daf maa yab. ndax su ma joxoon see doon jër day bàyyi ba pare da ko jëli leneen. moo waral combat bu métti lay doon. Mhm. ku la ko yombalal moo la ko xaj. mais ñoom ñaar euh, seen taay kan nga yaakaar ni xeex bu amee ki ci euh, kan moom moo lay. non ñoom ñaar ñëpp ay xeexkat la ñu. mais ci yenn ñiy def analise dañ naan tafaatin moo dàq xeex booy ñaa ëpp bëre bu sew mais loolu man gëwuma ko li ma gëm mooy tafaatin mën naa xeex man naa bëre. booy ñaa man naa xeex mën naa bëre. Mhm. Mhm. mais xeex xam naa ne daal ku ci gën a pare ku ci gën a pare bañax cof combat bi respecté ko. mën nga ci am avantage. Mhm. waaw mais ku ne la yomb na dalay nax. bëree bi lu mënul yomb. ci bëree bi ñoom ñëpp dañoo mën a bëree. Tapha Tine booy ses dernière sortie ni mu bëree Yékini Junior moo lay wone poids lourd la mais bëreekat la. Mhm. Boy ñaar dafa dafa mobile te dafa am ay ndoxtu moom ci bopp lay bëree. Mhm. dafa am su bëree. moo tax combat la boo xamante ni daal ay ñaari ndaanaan lañu. Euh, ku ne la day yomb da lay nax. Mhm. d'accord tey euh, li ñu teewloon ci ay minutes jeex na duñ def lu jox peen mu tàggatoo ak mbokk internet Dakar ne di ko doon seetaan. waaw di leen kontaane rek xam nga mbir moo mënta ñàkk. li mhm. ñu naan ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi. kër gi bu dee benn. bu ngeen ñu yittewoo dañoo war a wuy seen appel. Mhm. waxtaan ak yéen ñu waxtaanee mhm. làmb xam naa ne sax am na yeneen i jataay yoo xamante ni dañ ko séq ak yéen. Mhm. mais di rafetlu liggéey bi am na solo jërëjëf. incha allah ok noonu la ñuy defaat ak euh, Jamaïcain rek mooy mu tàggatoo ak mbokk internet yi ngay seetaan aussi mu wax tamit euh, ci euh, combat mi ñuy préparé ñu ngi ci bëgg a woo ñëpp. waaw ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu sa caméraman di nuyu ñu ñuy suivre yëpp si Dakar net. di nuyu njabootu làmb yëpp di nuyu suñu papa père baak njabootam yëpp ñu ngi koy jaar bu baax a baax di nuyu sama staff ñoom Mor bu parcelle Xaarim Anta Seck di nuyu waa Gambie itam ñëpp ñoom Gils ñoom Paate Aïcha di nuyu sunu xarit nekk fa Aïssa waa Gambie. waaw ndax mooy seen roi des ñoom décision boobu lañ jël ndax waa Gambie ministre bi ne na képp koo xam ne bëgg nga jógee Gambie ñëw ñoom par nañ pour jox leen ay moyens ñoom maanaam jàppuñ ne bàyyi ma doon la ñuy bëri seeg ñoom dañ jàpp ne seen des arènes mooy ñëw dajeeg mbërëm Sénégal comme Sénégal ak Gambie ñoom loolu lañ tey événement bi moo tax waa Sénégal tamit ñu jóg ñëpp jóg xam ne bàyyi ma doon comme CEDEAO bi nu ñu ko defee rek ministre des dañ koy lancer appel mu jóg dugal ci loxoom jàppale gars yi ñu ñëw ci stade bi bu bàyyi xoyantaan tàllalee drapeau Sénégal bàyyi ma doon tàllal drapeau gambi mu nekk affaire boo xam ne lu rafet lay doon wala xoyantaan tàllal drapeau Gambie bàyyi ma doon tàllal drapeau Sénégal ndax ku nekk sa réew ngay représenté bu bis baa mbiru CEDEAO wala ay médailles la ñuy teg ku ci daan nag Gambie ñëw nañ fi ci CEDEAO bi Sénégal dóor leen cinq 0 nii nag revanche la kon na ci ñëpp liggéey père ñu ngi koy jaar bu baax macha allah. mention spéciale lañ koy wax démb dama taxaw ci stade bi am ñu naan père yàq na làmb ji may na def na li ko war ndax làmb Sénégal nag li ci per signé nii ménagères yu koy signé léegi yu ndax man li ma jàng ci làmb ji làmb joo ma jox léegi mun naa la ko décortiquer te duma ci du ma du bis bu fi naar bi ñëwoon di carte ci làmb chaque semaine ma gañe ko ndax non du xam sax waaye làmb ji li ma ci gis mooy amateur buy dem stade léegi lu ci ëpp ñaar ngay yóbbu mbër daan nga ne xamoon nañ ko wala mbër daanu nga ne tey am naa lu ma bett te démb làmbu démb ji loolu amu ci maanaam ñoom ñu signé moytuwante wuñ Père Max bu doon wërul mooy danaan Coins du ma ko dama koy jëlal xoolal keneen ku mu mën a daan ku yor double moteur tamit danaan double moteur dama koy xoolal keneen waaye boo xoolee démb lu ñu bëree Coins démb bett na amateur yëpp ndax ñëpp dañ ñoon Coins mënul xeex. Burxaan dañoo taxaw ma ne ko lamb ji tey lamb wor la mu ne ma luy loolu ma ne ko mbër mu ci nekk ci bëgg am ndam di nga def lu ñu la xamee wutoon ndax lamb nag sport la boo xam ne la buñ la ci xoolee benn man rek doxut buñ la séentoo fet da ngay fetal ci peer laa ko doon déglu. moo tax démb bi arbitre soufflé coin ci téye Double Moteur xeex ak moom demi na ko ci xeex bi Burxaan daa yooxu. amateur yi kontaan ñu de. amateur bu kontaanul xamoo lamb ama amateur yëpp kontaan nañ sax. non non amateur yi fay ñoo ñëw fay seen rek kii pa ah, ñu ci bari kontaan nañu parce que nee na comment war naa leen. làmb day dese lu bëri. lu bëri ci làmb. làmb ay ndox su la. Gris Bordeaux ah, boo seetloo combat ah, double kii Gris 2 bëri na fi combat Tafa ngay doon ko coacher. bi mu desee benn avertissement mu ne ko génneel pakala mu puus ko mu génn mu jóg ñu jubile dem da ngay sukkandiku ci règlement da nga dul entraîné rek yoru ay mbër moo tax ngeen wax li ngeen di wax mais mais xoola règlement yi dañ ko tural mu bokk ci victoire yi lii du la mën a may ndam nga koy bàyyi di witi leneen soo waaw su ma ko doon forcel kii sonn na ba mu forcé daanu lu ñu may wax dañ naan da koo waroon a téye ndax moo am avantage mbër day am avantage ñu ne la bi même ci football mën nga dugal benn bii mënoon dugal lu bari mais nga ne mën naa dem ñu jiwarloog man euh, égaliser nga gérer temps bi. sa Coins mu ngi jaayu jaay yoo xam ne mënoon na cee daanu te double moteur bi mu ñëwaatee ci deuxième round su dafa yeewu premier round bi da doon newle ci biir bëri waaye dafa yeewu boo xoolee yaram bi xam ne kii ñëwaat na yeewu na bokk na ci làmb ji te muytul mbër mu sonn ci làmb ba coono bi jeex mu ñëwaat. ak mbër mu kaaw ba kaaw bi jeex mu ñëwaat moo tax démb père def na yëfu mag seer na làmb ji ba koyoon sa am ndam di ma tóor déméritéwul ñu ngi koy ñaanal boo amaatee benn combat yàlla dafa ko jaam. jërë ngeen jëf mbokk internet dakarnet.com yéen ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk gisoo père lañu dalaloon moom it ak euh, Jamaïcain gis nañ père lu mu analyser làmb yi am na solo bu baax a baax di leen wax di daje ak keneen incha allah di gërëm sama cadreur bi Dieye jaajëf.